assalamu asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax si leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokk internet yi te damay ñëw wax si fédération sénégalaise de football bi xamante ne dafa contacter fédération bu Brésil pour ñu amale benn amical mu nekk benn match bu xamante ne ñu bëri bi ñu koy seet dañuy jàpp ne Europe lañ koy joué wala feneen mais déedéet fédération bi dafa contacter waa Brésil xamal na leen seen bëgg-bëgg mooy que ñu ñëw fii euh, Sénégal stade Diamniadio ñoom nag si li ñu xamale si taskatu xibaar mooy que euh, waa fédération sénégalaise de football ñu ne dañoo bëgg récompenser euh, support supporter gaynde yi passion bi ñu wane amour bi ñu wane pour équipe nationale du Sénégal si suñu dernière jongante stade Diamniadio ba ñëpp am mbégte ñu am ndam qualifié coupe du monde du coup dañoo euh, ñoo ngi nekk si waxtaan jamono bi xamal ñu kàddu euh, bu xamante ne officiel na leer na instant si dañu wax ne waxtaan bi daal sori na lu bëree bëree bëri euh, et c'est pas que Brésil y a Paraguay y a Colombie y a Chili maintenant nag ñun Sénégalais yi buñ seen Brésil lay doon wala Argentine du coup lan moo tax mënul nekk ay pays européens instant boobu day fekk pays européens yi dañuy jouer seen ligue nation boobu noonu xam ne France moo ko mujjee jël Portugal jël euh, pour la première fois xam donc euh, si loolu la ñuy nekk du coup duñu am temps pour mën a jouer xam nga donte dina am yenn euh, pays yu xamante ne xëy na du jouer loolu mais ay équipe yu tuuti la ñuy doon ay équipe européens yu tuuti en tout cas man franchement bu amee dinaa kontaan lool parce que suñu équipe bi foog ñuy dajal gars yi gën a tàng ci àddina ñu won leen suñu bopp la dernière fois que ñu jouer ak kii di Brésil Singapour dañoo defoon match nul 1-1 et je pense que sax bu ñu joué ak équipe bi fi nekk nii mais mais voilà quoi stade bi euh, faut savoir que ne euh, waa Gabon mos nañoo joué amical ak kii di euh, Brésil te stade boobu ak stade bi du sax benn bi stade bi benn waaye beneen level la léegi nag ñan ñoo mën a jàppale fédération sénégalaise de football je pense que benn puma war nag mën a taxaw ci mbir mi benn puma war nag mën a taxaw parce que man la dernière fois bu Gabon bi dama déggoon ne président bi dugal na si loxoom dugal si loxoom si temps yooyu quoi xam nga donc. mais c'est bon quand même parce que franchement vous faites que nous, def nous yooyu dañ ko ay 10 ans si nous mais attends ñun Sénégal lan nous tax de Côte d'Ivoire France xam nga dañu gis yeneen dëkk africain yi ñu joué équipe yu mais ñun pourquoi ñun ñii propre ak joueurs ñor te jamono bi Afrique ñoo fi man ñoo fi ëppale ay joueurs mais dañu bëgg a jàmmaarloog ñoom Neymar jàmmaarloog ñoom Lionel ñoom Kylian Mbappé j'en passe match yooyu la ñuy xaar si ay Namibie bi euh, xam nga Eswatini waaw c'est bien beau nga ñëw def sa benn triplé sa benn doublé si match yooyu noonu nice rien à dire mais franchement am match yu tàng mais stade bi gëm naa ne gars yi boo ko defoon trente minutes ak ñu dem donte man bi passé wax naa leen sama cri gis ne dëkk bi métti na métti bu xamante ne euh, kii euh, bii il faut ñu wàññi ko mais masu tool noonu bu fekkee da nga ko andi ah, comme itul da ngay yéegal euh, kii bi biais yi man billetterie bi du mois ko yokku nañ ko rek pour man xaalis boobu normalement war na man a aider fédération sénégalaise de football ci je dirais si kii petite catégorie yi xamante parfois dañu am ay problème lii problème lële ñu mën a jël xaalis bi def parce que équipe A mosul am problème ay conditions yu baax la ñuy nekk donc un match Brésil mais ñëpp a koy rêvé ñëpp a koy rêvé kon ñëpp ñëpp bëgg nañ gis Neymar ñëpp bëgg nañ c'est pas moi Firmino ñëpp bëgg nañ gis ak yeneen joueurs yi nekk foofu c'est Brésil xam Vinicius Junior c'est des joueurs de xam yu xamante ne dañ leen seen télé ñu bëri amuñu occasion gis leen du coup ñoom euh, l'objectif c'est ça quoi bëggatuñu déplacé wu di dem fële ne et que joueurs yi dañoo bëgg ñu am benn fête parce que après dañu am vacances joueurs yi il faut savoir que ne saison bi ce sera très difficile vu que saison bu jeexee ñu jé seen amical taf ñu noppalé ko tuuti dañuy débuté la saison bi dawal tuuti dem dem euh, kii euh, dem seen championnat ñu mais c' est tellement compliqué saison bi di saison bu metti la sans compter coupe d'Afrique 2023 ce sera voilà euh, difficile en tout cas man franchement bi may yëgee information bi lu ma neex la muy Argentine muy Brésil buñ ko amé man pour man franchement choix bu baax té boba fédération Sénégal de football lañ leen di tatchu bu baax baax mbokk yi li mu nekkoon vidéo bi ci commentaire wax leen seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di wax ba benen sous Simple TV.